donc Sophie euh, c'est parti chef Sophie. allez Baye Cheikh comme ni ñu leen ko waxe woon sànq rek tey nag kii lañ leen andil. maa ngi MSF. am naa fii tamit li nga xam ni mooy euh, poivron rouge. am na aussi piment de Cayenne gis nga moom laa émincé nii ba mu sew de l'autre côté aussi dama jël euh, pomme de terre euh, gis nga nii dama jël rek euh, pomme de terre bi 250 grammes rek dafay doy largement pour li nga bëgg defar déjà nii rek moom pomme de terre bi defuñu ko à la vapeur baxaluñu ko dañu ko sauté avec un peu de beurre déjà nag dañu jël pomme de terre bi daal daal di koy <laughs> daal di koy dagg rek en petit dé bi ñu ko defee noonu nag ñu daal di koy teg ci euh, poêle bi bi ñu ko defee ci poêle bi ñu jël euh, deux euh, deux cuillères à soupe de beurre lañ ci sotti revenir ko nag ak moom dafay laaj nag nga def ci ail def tuuti curcuma ak tuuti laurier def nag li nga xamante ne ni mooy suñu épices yi nga xam ni moom lañ ciy def tey rek def sauté noonu ba mu am couleur moom damay ñëw rek daal di jël si mu relever li nga xam ne mooy couleur bi daal di ciy sorti euh, persil bi ak piment de Cayenne bi déjà mélange bi rek dafay relever nag li nga xam ne ni mooy euh, quiche bi nga xam ni moom lañ leen proposé tey déjà jeu de couleur bi nii rek déjà c'est autre chose gis nga bu ñu defee nii nag ba pare dañuy ñëw rek daal di jël li nga xam ne mooy euh, suñu jambon de bœuf fumé bi daal di ko ci rajouté gis nga nii rek ñaari tranche rek la ci ciy def jambon bi nag man moom la utiliser tey mais bu la neexee mën nga ko remplacer soit ak blanc de poulet wala nga def ko nag ak li nga xamante ne nii mooy viande hachée wala nga def légumes yi noonu rek naturellement mais ñun tey dañu jël tuuti jambon pour rajouter ko ci nga xam dafay gën a relever li nga xam ni nag euh, mooy goût bi voilà gis nga nii ñu ko découper nag euh, ba mu sew ni grossièrement dañuy ñëw rek daal di ko ci sotti gis nga nii ko ci sottee nii ñu dañuy yeggali rek li nga xam ni mooy euh, mélange bi gis nga suñu amee lii am nañu fii nag suñu benn sauce barbecue boo xam ni moom tamit dama ko day dem ci li nga xam ne mooy kiis bi ñu leen proposé tey am nañu tamit fii euh, un peu de crème crème bi lañuy ñuy jël rek daal di koy sotti nii mu fekk ci euh, sauce la mën nañu def nii rek daal di koy mélangé suñu amee nag mélange bi dañuy rek jël moom tamit tuuti fromage daal di ciy sotti mélanger ko ak moom gis nga ni naka ñu am benn mélange bu homogène bu compact lii nag la plupart du temps dañ koy def ci gaz bi pour mu euh, frémir tuuti mais jaru ko soo amee mélange bi rek mën nga ko ci sotti nii rajouté ko mu fekk li nga xamante ne ni légumes yi ñu daal di teg nii rek euh, suñu bool mën naa rek jël cuillère en bi. mooy gën a pratique pour ma mélanger ko gis nga nii rek nga continuer sa mélange daal di am benn mélange bu extraordinaire gis nga lii bu la neexee doo ci teg li nga xam ne mooy pâte feuilletée bi mais ñun tey dañ ko ciy def nga xamante ne soo koy découper dafay gën a facile ci yow gis nga nag soo defee nii ba pare am na ñu fii rek nen yi nga xam ne dafa war a dem ci quiche bi voilà gis nga nii comme li ñuy wax toujours rek mën nga jënd nen du frais nga jël ko sotti ko ci directement su boobaa sa euh, wala sa appareil dafay yàqu dafay laaj. des fois nag nga jënd ko ci grande surface yi wala ci boutique bi fekk yi dafa yàgg su boobaa boo ko ci sottee da ngay gis ni li nga defaroon yépp day nekk zéro parce que dafay yàqu. ñu def ko nag par benn benn. voilà gis nga nii rek ñu daal di sotti. en on termine ak euh, sixième bi voilà gis nga nii rek mën nañu ko tegee nii daal di dindi kuddu bi jël rek cuillère bi daal di koy mélanger lii nag nag euh, nen bi daf ci am solo bu baax a baax a baax parce que moom nag moo ñuy permettre ak fromage bi mooy lié li nga xam ni mooy légumes yi ak jambon yi pomme de terre bi ñu jël nii def ko ci pomme de terre bi nag bu la neexee mën nga ko changer nga def ci euh, courgette bu la neexee tam temps yi haricot vert am na nga jël haricot vert def ko ak moom gis nga ni fi ne nii mélange bi pare na li des nag mooy ñu daal di jël suñu benn euh, moule boo xamante ne nii mooy dem au four gis nga ni déjà am nañu suñu pâte feuilletée déjà fait bu la neexee nag euh, mën nga euh, excusez-moi pâte brisée laa jël mais bu la neexee mën nga ko rek euh, defar la sa bopp wala nga def. ay noonu su ko defee ci kanam dinaa mën a génnee sama kis tranquillement nii rek bi ñu daal di découper bordure bi. voilà gis nga nii rek ñu dindi bordure bi li ci des nag mën nañ ko ay noonu ndax papier papier cuisson la du def euh, dara de préférence nag bu fekkee yaa ngi sa kër defuloo cuisine rapide mën nga ko jël fourchette daal di ko ciy jam def ko au frais def ko euh, ci four bi nga xam ne da nga ko préchauffé à 180 degrés bàyyi nag ba mu xaw a commencé di coloré tuuti rek nga génnee ko boo ko ci génnee da ngay ñëw rek daal di ciy sotti nag mélange bi nga xamante ne nii moom la ñu am fii nga nii dañuy voilà gis nga déjà dafa koore boo ko séenee rek xam ni ne ci fóot bi dina am goût bu extraordinaire voilà gis nga nii rek ñu daal di koy remplir ba mu yem suñu paree rek am nañu fii euh, quelques olives vertes laa jël mais bu la neexee mën nga jël olive noire ñu euh, terminer rek ak tuuti fromage ci kaw ñu rappeler que ni ci biir aussi nañ ci mélange bi fromage ba nga xamante ne ni. dafay euh, andi élément de liaison bi ak nen bi ak crème liquide bi nga xamante ne ni moom la ñu def voilà gis nga nii rek sànni nag nii ba pare fekk nag comme li may wax toujours rek préchauffé nga sa four à 180 degrés da nga koy wàññi rek ba 70 daal di ñëw rek jël sa kiis nànk dugal ko ci fuur bi daal di bàyyi noonu nag mu ñorandi de préférence da ngay taal ci suuf ba mu commencé ñox bu baax nga doogay taal ci kaw bu ko defee mu gratiné am couleur boo koy xëcc nag mu àndandoor ak fromage bi nga xamante ni moom la ñu def à l'intérieur terminé ko ci kaw ak quelques oliver vertes sànq wax naa bu la neexee mën nga ko changé pourquoi pas nga dagg rek poivron yi daal di ko ci sànni ak moom mu àndandoo gën a am couleur bàyyi Cheikh ci kanam nag fekk ma def ko ci four bi ñu daal di koy andi daal di jàll ci li nga xamante ne mooy dégustation plat du jour tey bi bàyyi Cheikh voilà donc on va déguster dans quelques minutes sañu ma la jege ndax Covid bi. mais li may seen daal xeeñ na neex. gis ma def ko ci four bi rek mu gratiné ci kanam ma andi ko ñu. gratin la non non quiche la. quiche lorraine waaw. ah <laughs> moom laa def tey. d'accord on va déguster dafa xam nag quiche waaye écoute eh, ah que tu penses. <laughs> quest que tu penses ndeysaan nekkuma foofu yëpp maa ngi feneen. ndeysaan waaw kay voilà. Euh, donc regardez